ni ko mag ñi tàmmoo noonu la ko xale yi bëggee ndox waalo foo dem fekk ko fa ndax am na fépp ñaar fukki dërëm rekk lay jar ku nekk ak bosam Waalo la qualité accessible à tous. tàngal bégee ak susetam yii seen ndox mu sell mii di waalo ak seen boisson punch ñoo leen di may seen émission koor gi kon nag koor gi tàmbaleeti ñu leen di nuyuuti di leen bëggeeti di leen ziarati amati mbégte bu baax a baax a baax saa bu nu xëyee di àndandoo ak yéen euh, ci Sud FM seen rajo la première radio d'information du Sénégal bonjour nuyu naa leen ziar naa leen dellu si weekend euh, weekend bi nag buñ ci dellu see dañuy ànd ak bagage yu bagage yu yu yéeme yu doy waar yoo xam ne euh, daf leen di neex saa su ne ndax bégal gannaaw bi ma jógee ci euh, kama tàmbalee euh, émission bi la di oustaz Alioune Sall euh, beneen gan ak supa ndaaraan a ngi fi tey danaa ci ñëw léegi léegi mais oustaz Maodo Faye dellu nuyu la bégal la ziar la amati mbégte bu baax a baax a baax noo def ak suba si. waaw sant yàlla bu baax a baax di la gërëm bu baax a baax a ci liggéey bi. jërëjëf di sant tam mbokk yi nga xam ne jamono bi ñu toll ñu ngi ñuy déglu. jërëjëf Fatick voilà maa ngi lay ziar bu baax a baax. gan gi moom ñëw gan gi moom gan gan gan moom ah, gan gi moom. Ah, defe naa sànq maa ngi naan euh, soppe Sénégal yëpp la. <laughs> waaw c'est clair waaw boo nee yi ñu ne la Abou Bilal. nga ne commerçant yi ñu ne la Abou Bilal. nga nga dem ci fajkat yi ñu ne Abou Bilal. nga dem ci homme de tenue yi sax ñu ne la Abou Bilal. maanaam Kouthia ci boppam mooy mooy soppe Sénégal. waaw xam nga lu koy def xam nga yàlla moom day gis nga ab groupe. fokk yàlla rocc ca kenn koo xam ne ki mooy ne ca bopp ba loolu moom. ñëpp ci ci ci domaine yëpp la. Mm. léegi nag ki nara a sonn nag mooy ki nanguwul li yàlla doon. quand même kooku moom kooku moom moom day day am problème. quand même waaw day am problème <laughs> loolu. loolu daal loolu daal ci ñëwaat bu ci kanamee tuuti kon nag euh, El abu Abou Bilal euh, mbégte la euh, bu baax a baax a baax ma dalalati la ci Sud FM saa soo fi ñëwee man damay am mbégte bu baax a baax a baax Koutia salaamaaleykum. maaleykum salaam mbokku auditeurs yi maaleykum salaam waa rajo bi. ak euh, ñi ma fekk ci bërëb yëpp mm-hmm. di tàmbali nuyu bi ci euh, alaaji Maodo euh, mm-hmm. teg la ci yow sama xarit Nicolas ak ingénieur yi mu fi fekk son yi ñoom sonsé ñoom ñëpp maa leen di gërëm di la waat di ñëwaat sama kër fii nga xam ne Sud FM sama kër la boo ñëwee Sud FM moom ñëw nga sa kër ku ne ku ne Sud FM ne Kouthia ne ne RFM ne Zik FM ne Walfadjri ne voilà mooy def ci ak sotti ci naka koor gi koor gi day wax dëgg yàlla fan yi moom xaw na neex moom ah. tey daal neex na xaw ma nag euh, yi dem suñ kanam waaye ñun waa Dakar neex na mais Fuuta moom eh. ak euh, Casamance wax dëgg yàlla ñoom koor gi tàng na foofu ah, tàng na trop trop ah, ah waaw parce que Fuuta eh. euh, barke démb sama benn xarit dafa jënd sondeel pour sarax ko diggante midi ak une heure <laughs> mais diwlin la génn ci loxo yi waaw le temps muy traversé pour jox ko nit mu nekk diwlin nga war a xam ne kon tàngaay sondeel bi ruuy sondeel bu nekkee ci biir sax day nooy mais buy génn ci naaj bi rek balaa ngay Fouta bi. Euh, kon de Fuutanke yi euh, am na problème. mbokki auditeurs yeeg internautes yi maa ngi leen di wax ne ñu ngi en direct ci YouTube ñu ngi en direct ci Facebook ñu ngi en direct suñu ay réseaux synchronisés tey ngeen xam ne lépp dëgg la kii mooy Kouthia euh, oustaz des dooy seetaan Kouthia nga ne nga ne Kouthia est-ce que est-ce que est-ce que mu ngi ci góor gi sax. non parce que non ak énergie bi muy joxe. non boo koy seetaan sax da ngay defee ni <laughs> kilifa day nekk chef de famille boo xam ne da nga naan mais comme yow tey boo nekkoon place bi nii ngay doxale mais loolu nag loolu nag euh, finesse la bu yàlla foofu la mm. foofu la foofu la particulier moom touche foofu la leere quoi mm. moom li muy def day nuru day nuru li muy li mu doon am na ñoo xam ne def dara nga xam ne ñii day mel na koy tricher wala ki xaw a kii mais moom il est dedans quoi il est dans son affaire loolu loolu nag yàlla ko defal ko am solo Kouthia Abou Bilal doon suñu gan tey ci koor gi mag oustaz Maodo Faye euh, li may tàmbalee Kouthia mooy euh, li fi mujjee ci information Euh, te xam naa ne euh, concerné nga parce que gis nañ euh, jamono ji weeru koor gi ak comédie beeg théâtre bi ni muy takkarnaase mhm. li ci mujjee mooy benn théâtre bu ñu créé woon justement pour weeru kooru 2021 bi mhm. inspiré wu def naa ci ku mel ni kooku yi ñu naan Adji Sarr xamoon nañ histoire Adji Sarr Ousmane Sonko kërëb kërëb jàppal bàyyi théâtre bi inspiré wu ci créé ci benn kii mu mu mu am polémique ah avocat wu Adji Sarr boobee ne dafay porter plainte et affaire bi daal daa mujjee ca ca fa ñuy kiiwee général. waaw général ñoom waaw Babacar Diagne finalement voilà tranché ne euh, série boobu sax dañ koy suspendre faf euh, ba mu gën a leer non non nan nga gisee euh, boobee boobee histoire. waaw histoire boobu wax dëgg yàlla damay jox dëgg Sénéra en tant que artiste parce que damay gis ne wax dëgg yàlla. Hmm. dafa am ay points yu sensible damay faral di wax gaa yi nañu bàyyi di jouer ci ànd ak bu nit pour reetaan looy nit. Hmm. benn gumba la la woon. Hmm. benn muuma la parce que ci si handicapé doomu jàmbur. Mhm. nit nit doomu aadama munoo cee bégal ay nit pour ñu ree waaye problème boo xam ne dafa nekk si justice ñu koy réglé. Mm. te mu sensible ci ñaari côté yëpp. Mm. ci ñi nga xam ne ñoo ñoo tooñ ak ki ñu tuumal te xamaguñu fu dëgg bi féetee. Mm. nga bëgg koo jël pour bégal ci nit ñi. ci ci ci sens boo xam ne yow xamagoo euh, euh, euh, développement bi ak conclusion fan la introduction la mooy problème bi am na. justice développé gul defaguñu procès defaguñu dara. nga bëgg jouer ci loo xam ne yow da ngay orienté nit ñi ci li nga xam ne moom mooy yi sax sa gis-gis boo xam ne bokkul ak gis-gis bi nga xam ne mooy cëppaandawu justice nan lay mujj tranché donc dafa yoo xam ne dafa sensible am na leneen lu gën a neex aji saar problème boobu lu ko gën a neex loo xam ne war nañ ko mën a ci nit ñi da nga a di xam ne wax bi nga xam ne loolu daal artiste nañ ko teg fële pour yow kon loolu yee fitna la. waaw dafay indiwaat dëkk dëkk. provocation la quoi boo xam ne doomu kii xam ne moo ga kii xam ne ne dafa gaañu ci événement yi. mu hmm. taal télé bi heure koor dog jot. Hmm. nga koy indil série hmm. xam ne. daf ko waroon a muñaale fàtte te xam ne li nekk ci kanam mooy ñaanal ko waaye doo indiwaat loo xam ne bu ko xoolee rek loolu yeewaat fitna. donte yow yow mi artiste yow itam daf nga parodie man dama ko def mais dama won Sénégalais yi euh, moment bi nga xamee defoon ndax da doon nelaw war a nelawul def mise en scène bi pour juste euh, euh, wane li xewoon palais ba nan la ko Macky Sall dundee te mu ëmp nit ñi mm-hmm. ak sama imagination ba pare wan sénégalais yi laam-laamee bu ñu doon wax ne Adja Sarr dañ ko répété loo mbir bëgg yooyu xaaral ma génn leen dama dama dama sama façon mm-hmm. euh, artistiquement indi ci benn touche mais scénario bi nga xam ne ñoom moom laa sentir te amoon ci aperçu mm-hmm. te am lu ma ci yëg bu ñu ko d wax dëgg yàlla man a je na dafa doon indi beneen problème mais information mun amour ci kaw nga bañ a vexé war a nga mën a euh, indi ay problème ci nit ñi parce que tamit euh, dafa am ay problème yoo xam dafa sensible dafa sensible trop pour kii euh, artistes yi di sujet damay gis des fois gars yi ay comédiens jël ay loxo di def ay AVC ku hmm. AVC di ko géloorul war a gumba benn gumba la woon war a benn lafañ la woon te yow lafañ ba war a gumba ba sa soppe lay doon boo xam ne yow mosoo xam loolu mu toog ko seetaan ak ay nawlem nga géloo ko ñàkkal loo ko fayda war a génn ci ànd kabam pour nit ñi hmm. vraiment loolu artistes yi nañ mën a xool leneen lu gën a neex loolu ndax am na fi faral di gis rawatina weeru koor xam nga théâtre day takarnaase euh, façon bu ne euh, yow en tant que euh, nitu diine naka ngay gisee d'habitude gaa yi ni ñuy traité diine ji ak ramadan beeg théâtre yi. waaw xam nga <coughs> da ci am loo xam ne comme ni ko ku caa waxee ngeen baal ma <coughs> dafa am loo xam ne dafay dafay laal ci ci xoolu doomu aadama. Mm-hmm. bu dee ci côté diine bi su fekkente ne lañuy def nekkul loo xam ne nur na luy saboté maanaam loo xam ne day yàq image yu jullit bi wala yu demee noonu. Mm-hmm. benn affaire boo xam ne bi ñuy taxaw di julli ba mu yàgg taxaw ak julli ni mu garaawee ci lislaam mhm. am ko dagg julli gi dem lekk hmm. xam nga loolu tamit dafa xawoon a doy waar am na ñu ko doon ñu ko doon ko di ko di ko hmm. te loolu doy waar la mais bu fekkee nag da ko wax globalement hmm. ne te wax ji touché kenn comme ni ko ku caa waxee léegi loolu mën na jàll mais Nicolas bu ñu fàtte benn affaire gis nga télévision yi dafuñu de ci weeru koor gi mais dañuy jaay sponsor yi dañuy xool Kouthia mu neex leen gis nga Kouthia buy def bouteille yu bëri da ngay gis muy naan fi <laughs> mais parce que ñooñu intéressé na leen léegi nag loolu loolu loolu lu koy yàq mooy bu fekkoonte tey Kouthia il n'est pas professionnel par exemple mm. mu dugg ci beneen domaine ba touché ci ñooñu kenn koo xam ne ki amoon na par exemple laago boobu wala doomam te fekk ñooñu ko doon jaay produit bi mais du sabar ci Kouthia moo tax il faut ñu ñuy ñuy yéen ci ci weeru koor gi nan ngeen di organiser seen seen théâtre yi ngeen yi ngeen di def parce que day bëri quoi. day bëri waaw waaw waaw man bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo njëkk def ay série hmm. mais toujours dañuy wane beneen touche. parce que dafa am loo xam ne da nga bokk ak réew ay sénégalais ay doomu aadama yoo xam ne euh, a fës mooy ñu topp ci ñoo topp yoonu Seydina Mohamed. Hmm. salaahu hmm. sa diine mooy l'islam. bu fekkee da ko jël banaliser ko di julli. nit romb war a ngay wax wax ay saar di ko di wax demee ba nga xam ne moom dafa garde diineem moom dana day mujj sax wax ne ñii li ñu yor dañ koo téye di ko fooyee. musoo hmm. gis benn ñuy jéem di ci dugal ay Jésus Christ ak war a abbé léeg man damay def sax carême carême carême chrétien dama koy def mais dama koy def ci norme boo xam ne. Hmm. du ma dugg ci bible du dugg ci leneen loo xam ne église bi da koy bind mu sensible bu sacré. Hmm. su may def tamit samay waaraate dama yor sama arabu bopp yoo xam ne boo ko déggee. li euh, li Maodo wax léegi boo ko déggee da nga yaakaar ne. kii li muy wax nii dafa sérieux fekk ay arab yoo xam ne xoolee doo ci dégg benn araf wala benn mot boo xam ne mën nga wax ne Kouthia li lay wax tonation bi dinaa ko def maanaam ma ñëw ma ñëw waxtaan wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waalakal baala man muuli wa salakal laalakal baala maalal yow indi nga forme bi mais xaw ma ci dara doo xam dara ñu wax sax déggoo li mu wax waaw da ngay yaakaar ne ay arab la mais dara ñu si kay arab ju jóge ci waaw doo xam ne man des fois sax dama naan est-ce que li may wax du ma dem sax ba saaga sama bopp ah. war wax loo xam ne bu ñu ko des fois nga forcé loo xam ne sax dina xaw a nuru arab mais doon arab kon gars yi dañu war a xool loo xam ne mën nañ bëggal nit ñi te bañ a dugg ci diine mun nga bëggal nit ñi ci façon bu nekk ci comédie te doo dugg ci diine lal basang julli xëpp kii fi teg fi la la série dafa bëri c'est-à-dire télévision yi xam nga ban problème dañu am hmm. dañu am problème directeur casting hmm. ak censure censure waruñu xaar général dañu censuré hmm. dafa war a am ñoo xam ne xaalis bëri bëgg baax na trop waaye ci télé yi dafa a am direction censure et casting luy jàll ñu casting ko xool ko ba pare xam ne lii bu jàllee nag responsabilité bi nag ci direction ba la mais du nekk ci artiste est-ce que déjà est yi. ñii di ko def. ñii di ko pratiquer. est-ce qu'ils sont à la hauteur. est-ce que ni koy defee baax na. mais da ngay ñii ils sont bons. mais da ngay gis benn comédien boo xam ne day jouer ci cinq séries. Hmm? cinq séries nga gis ko fu nekk mu joué fa. Hmm? léegi en fin de compte il parce que moment la boo xam ne euh, kon fin d'année rek arbre Noël wala moment koor gi fin euh, moment la pour artiste comédien yi donc da ngay gis rôle bu nekk ñu ko ci affaire ba jaxasoo. Hmm. nga gis ñoo xam ne weeru koor duñu ormal sax seen bopp dañuy jël seen dënn yi ne ko fàng. Hmm? ñoo xam ne dañuy xeesal ñoo xam ne duñu teg kar ñoo xam ne duñu mag même ci plateau télévision yi. yi xam ne day am guddi ne bu ñuy def seen plateau dañuy mel ne grand théâtre nañ jëm <laughs> nga war a def sellal da nga war a génn weeru yërm yërmande la waaye maquillage sa kanam gi mel na kuy dem soirée dansante grand théâtre la grand show de Youssou Ndour wala la nekk ci télé yi. Hmm. dafa jigéen am na jigéen yoo xam ne. Hmm. boo setulee waroo toog di wax ci Serigne Touba a maam El Hadj Malick. waroo wax ci hmm. lislaam dañuy toog ci télé yi gis baax ba pare toog ci télé di wax ci waxu diine te dañ leen fa war a jëlee affaire diine jigéen waru cee am xam-xam lu dul ustaas bu jigéen war a ko jàng waaye ay animatrice toog ci télé Serigne Touba nga a xam naa ci dara non damay wax d'une manière générale ma mere parce que tamit du woon yoon du woon yoon ñu mënul kolu ñu kolu rek mais dañuy make mais munoo munoo sol benn colin gi jàngoo dara ci l'islam xamoo ca dara dob oustaz xamuñu sax foo toll ci sa wàllu kii génnee sa ay ween ak nekk naan alaaji Malick nee na sëñ Bamba nee na di jooy di comédie rokkal seen ronga ñi di jooy dañ koy préparé bu ñu gisee animateur central bi jooy bu ñëw bu ñu jooy ñu commencé <laughs> di fekk aram weer instant boobu ñu toog sax setuñu waaw ah, mais wax na dëgg wax dëgg day na logique la day na man foofu nag danaa la fa interpeller euh, tuuti tuuti est-ce que est-ce que dans ce gouvernement là il y a un ministère buy gérer wàllu culture te yëpp ci la bokk di ñun de waruñu man de ci domaine bi may yëngatu ci euh, culture urbaine yeeg yooyu des fois dañuy faral di musuma gis benn ministre de culture bu ma mës a recevoir hmm. musuma laal seen aide musuñu ma subventionné musuñu ma jàppale musuñu ma recevoir li ko ci Abdou Diouf ba hmm. à nos hmm. musuma lekk benn xaalis boo xam ne financement ministère de la culture Sénégal daal même sama patron bi bu ko jiitee hmm. Youssou Ndour hmm. boobu xawoon na tane hmm. boobu moom daan na ma compal ci li mu yor moom <laughs> ma yëg ne compal na ma ci li mu yor parce que xam naa danaan kii sama domaine la bokk <laughs> mais ba mu fi jógee ba tey daal ñi fi nekk ñëpp xaw ma ci kenn gisuma leen xaw ma fu ñu nekk te ñun on est des hommes des acteurs culturels mais yow mosoo am benn projet culturel boo soumettre euh, euh, état bi wala yu demee ba dee projet ba dañ koy xool ba pare modifié ko dugal seen yaay a seen papa def <laughs> Aïcha euh, mooy sunu gan tey de travail euh, ñu ngi ci weeru koor euh, weeru koor gi ak liggéey bi naka lañ leen mën a boole. dama bëggoon lëkkale voilà Imam Ndiaye laa bëggoon ñu indi tuuti ñu ñu waxtaan ci vite fait di dellu si Imam Ndiaye ñu déglu ko. waaw liggéey moom ak koor wax dëgg yàlla noo ànd parce que li ñuy constaté tey ci penc mi rawat na nag ci bërëbu liggéey liggéeyukaay yi ci koor muy tayal geeg yaafus gi looyu moom wax dëgg yàlla islam rafetlu ko benn benn yoon rawat na nag ci ab jullit dañoo xam ni liggéey ci boppam farata la farata la ci bépp jullit boo xam ni wér nga am nga kàttan dara jotu la ndax ci liggéey ci la nit ki mën a sàmmee ngoram mën a sàmmee diineem mën a sàmmee dignitéem kon jullit bi mu nekk ci koor wala mu ñàkk bañ a nekk ci koor dafa war a liggéey euh, du lay nag nit ki nii dama woore waruma liggéey wala waruma def sama liggéey na ma waree loolu moom wax dëgg yàlla moom du lay ndax koor ak liggéey ñoom noo ànd te gis nga lislaam dafa nekk diine koo xam ni lii di tayal ak yaafus daf ko mos a dàq kon nag tayal gi ak yaafus gi nga xam noo koy gis tey rawat na nag ci bëccëg ci koor gi ci lieu de yi loolu moom islam rafetlu ko benn yoon ndax dañu war xam ne liggéey ci boppam euh, dafa nekk sax gannaaw ba mu nekk amee aspect social waaye dafa nekk jaamu yàlla bu rafet jaamu yàlla la liggéey jaamu yàlla ndax di daan sa doolee dunde sa ñaq amul lu ko gën a nekk jaamu yàlla comme yonent yàlla daawuda alayhi salaam noo ngi yàlla mi ngi joxe exemple toujours ci moom bu fekkee ci jaamu yàlla jàmbaar la ci woon bu fekkee ci liggéey la jàmbaar la ci woon moo tax liggéey dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla dafa ànd ak koor kon nit ki euh, bu wooree tamit dafa war liggéey koor warul ñëw dinu empêcher dinu gàllankoor ba dinu liggéey kon daal ci gàttal koor ak liggéey nu ànd jërëjëf Imam Mactar Ndiaye kon dégg ngeen la mu wax euh, liggéey ak koor ñoo ànd wala koor ak liggéey ñoo ànd kon nag euh, ku ci ne euh, boo xëyee di jaay yaafus wala di jaay naxasaale naan wéy c'est-à-dire que koor gi jàpp na ma kërëb kërëb pour bañ a liggéey imaam yeeg ustaas yeeg ñëpp nee nañ xoolal suñu borom ci boppam moo njëkk a digle xoolal ak loo woor woor ak lu mu métti métti xoolal teg ko ci rek nekkal ci waar wi rek. justement Koutia Abou Bilal moom mu ngi ci waar woowee waar woowee nga xam ne mooy comédie ak ak théâtre et tout ça ba benn instant dafa mel nii loo xam ne dañ leen soxla juste pour faire rire la galerie quoi pour amuser la galerie maanaam yéen yéen da fi nekk daal pour reetaan loolu nit yi euh, après après mais pourtant yéen say dafay day dégager ay messages. non mais waxuma waxuma ci moom ci liggéeyam dama ne nit yi ni ñu leen di gisee ah, dañ leen di comme ñu leen reetaan loolu rek et tout ça mais euh, parfois on a du mal à vous prendre au sérieux euh, naka nga gisee loolu. waaw man pour àndaloon lii kër kër. Hmm. man leen man dama jàppee sama bopp kon un journaliste d'humour. Hmm. maanaam damay jël information. Hmm. bi nga xam ne réalité la daal di koy indi en version humour jàll ci message def ci li nga xam ne moo koy xoromal. ba nit ki mun koo consommer. mais dafa am man dafa mel ne euh, euh, euh, humour dafa mel ne sport la. sport xam nga am na basket am na tennis am na karaté am na lépp. comédie tamit noonu la mel. dafa am ñoo xam ne ay guignol nañu am ñoo xam ne ay mais am ñoo xam ne dañoo topp ci yoonu maanaam information man dama jàppee sama bopp dama ko wax ko hmm. nekk nii. Hmm. fekk kon nag ci ngay soog a xalaat ne kon kii ndekete moom information bi la jël suukar ko. Hmm. mais am na ñoo xam ne ay lépp kan nañu benn paa la woon léeboon lippoon amoon na fi nga def ko mu neex dugal ko ci internet bi ñu ne kii moo xew mais boo demee ba say lépp jeex ci benn émission dootoo léebati

tuuti rek. Hmm. dafay wàccaat parce que loolu mooy artiste ascenseur ñi nga xam ne galère ñu jaar ci yoon képp kuy jël ascenseur mooy da yàkkamti. Hmm. ku jël escalier nag mooy da gis gàllankoor. Hmm. nen bu ñu teg ci yoon bi nga puus ko. ku taxaw ci yoon bi baara la nga taxaw négocier mu jàll ascenseur daal. moo gaaw waaye escalier moo wóor. parce que boo jëlee escalier di ko raam di ko raam ba egg au coono bi nga def doo nanguti wàccaat ci suuf da taxaw ca kaw. Hmm. mais problème bi mooy boo amee défaillance technique. Hmm. soo waddee rek dootoo jug. ndax say mbokk lay seeti. Kouthia Abou Bilal euh, di ganu koor gi tey ci suba si euh, Abou Bilal. Euh, ñu ngi gis ci weeru koor gi ni ko waxee théâtre yi bëri na télé bu nekk am nga ci au moins ci théâtre yooyu ci yi nga ci jot a suivre bu bu weesoo évidemment Taïfin bi nga xam ne moom nga indi ren ban ban beneen théâtre nga gis ne par rapport ak weeru koor gi vraiment méngoo ak comédie wala théâtre laaj jamono moo ci gën a neex. Ah. sama bas moo ci mooy mooy taay fii. waaw moo ci gën neex. Ah. sama bas rek moo ci neex <laughs> waaw man sama bas moom wax dëgg yàlla neex na moom mais ñeneen ñi moom. copi collé la rek. Kouthia théâtre nañ de. dama ne sama bas moo ci gën a neex parce que gis nga kii théâtre. Ah. bu mu nax kii seetaan. exemple munoo wax ne yow damay joxe exemple. mu ne ne munoo munoo wax ne euh, téléfilm bi gargot la tudd. nga dem wane benn salle boo xam ne kon méridien ah, ñu defar ko ba mu rafet ah, ay sées ak yëpp kërëb eh. kërëb ba pare ci biir gargol bi nga indi ay tëggkat sabar ay yëpp fekk nit ki dafa ñëwoon pour añ je donne l'exemple de ma de ma télévision. waaw waaw waaw parce que dama ko fa gis. Mm. donc gargote mooy loo xam ne fa la ba menuisier ba nga xam ne. Mm. day dóor dàqee mooy ki nga xam ne day dóor dàqee mécanicien bi nga xam ne dafa nekk ci angle bi bëgg añ rapidement. Mm. dóor ñu defal ko benn gargote noonu ñaari mbaar dafa kii a wane ne évolution diggante. kon da ngay da ngay évoluer tour bi génn ko dootul. Ah, dootul correspondre ak li nga wax. gargote mooy loo xam ne daal ah. ay dëbb dëbbal palais luxe ba fa nekk kon palais. Hmm. nga bëgg nag indi euh, dugal fa comédie. Hmm. te amul dëgg c'est-à-dire que y' a a des choses yoo xam ne comédie soxlul ay cinquante de personnes ay dix comédiens ñett war a ñaar mun nañ ko def mu aise nit ñi dégg. Hmm. mais kii wax fii kii wax fii man daal li ma gis yëpp yëpp sama bas moo ci a a ëpp euh, euh, visibilité parce que je parle de aawo ak ñaareel ci biir kër moment boo xam ne wax dëgg yàlla borom kër gi dafa war a def équilibre kon ni ko lislaam waxee yemale ci parce que yàlla moo eh. eh. ah. ah. eh. la. mais man loolu moo ma jaaxal parce que taay parce que titre bi taay la mais. gisuma ci daa waroon na xaw sew tuuti mais ah. man ñi ma gis moom vraiment am na benn waaye bu ma ñuy lu Kouthia lu xartee ci àddina bi. non bañ dem ba ci xaaral bañ ba est-ce que xam Sénégal moo ëpp jigéen jigéen ñoo xam ne ay dañoo obèse mais dañu ko xam ah waaw waaw te il faut ñu valoriser leen gis nga jigéen ñu am yaram yi hmm. ñoo dàq say jigéen ñu taay fii nii hmm? ah? Ah? jigéen ñu am yaram yi dañuy am yërmande seen xol day rafet dañuy bëgg sëy parce que pour ñu gis ku leen labat mooy jafe hmm? dafa may góor yoo xam ne am complexe ànd ak jigéen joo xam ne grande dame la taille montagne <laughs> taille jalu suuf mooy taille montagne et dañ koy bëgg mais dañu am complexe waaw léegi mooy ku tuuti lu mag jigéen ñi nga xam ne dañu am yaram noonu souvent seen jëkkër day tuuti parce que boo rëyee lu tuuti ngay bëgg gis boo tuutee tamit lu rëy ngay bëgg gis yaa ngi dégg c'est dans la tête c'est dans mais il faut ñu valoriser parce que dama ci gis ay femmes obèses yoo xam ne dañuy bëgg am jëkkër duñu am dañuy sonn parce que xam nga mm. elles sont très belles naturellement moo tax ma bëgg valoriser euh, euh, dëxa yi pata yi obèses yi ah, ci 2022 bi ñu am jëkkër bu baax question qui euh, yow en tant que artiste comédien reconnu avec expérience bi nga am yëpp euh, nga nekk ci benn chaîne de télé di fa liggéey euh, bu lu mel ni amee muy weeru koor ñu xam ne théâtre yi day bëri artistes yi comédiens yi dañuy jógee fu ne et cetera yaa ngi wax sànq naka directeur artistique nga wax directeur casting et censure. waaw lu tax lu tax yow duñ la duñ la consulter par exemple balaa. ma joxe sa xalaat di ñëw étant donné que yaa ngi ci kër ah, gi.

buy jàll waaw fekkee dañ la ko indil hmm. ne loo xam ci lii nga naan ah lii bu mu jàll hmm. ñoom bu la neexee sax ñoom ne ku jaane ne lii bu mu jàll hmm. ñoom ñoo xam seen comportement mais xam naa ne buñ ko jàllalee la ma leen ci dañ ko gis mais lépp lu jëm ci humour ak comédie kon duñ la ci consulter ah non man de gisuma ci loo en ah, loolu dañ ma nommé woon yow fekk la fa yow d'accord waaw fekk fekkoon na ma yàgg na <laughs> euh, euh, euh, loolu mais dama la bëggoon oustaz. Mhm. abu bilal dama ko dencaloon mel ne surprise. waaw <laughs> ah. ah, xam nga tubaab dafay ne la surprise a ses plaisirs. waaw euh, Kouthia pare nga. na surprise on écoute. mais Nico ziar naa la tey da invité suma suma suma xarit. waaw suma xarit nit ku ku baax nit ku oyof nit ku dëggu muy Samba Sine alias Kouthia Nicolas dinaa la wax benn affaire bu lu ñu bari xamul ci Kouthia ku yebu mbaam nuñ ci ay mbiram. Kouthia ku yebu mbaanu ci ay miram waaw parce que man dama jàpp dafa am mayu yàlla dafa am may yàlla te loolu nag tu euh, n'importe qui la ko yàlla di jagleel xanaa del du ko ñaanal rek yàlla may ko gudd fan ak wér ba li muy nas ci li muy yëngu ak sénégalais yaay yàlla may ko mu mottali ko parce que Nicolas euh, si euh, Kouthia mi boo déggee ma lay wax yooyu. mooy nit koo xam ni euh, dafa gore waaw góor piir la te gis nga liñ naan euh, góor balaa nga ko xam tegal alal ku Kouthia bu ngeen àndee yéen ñaar même bu fekkee moom lañ njëkkati jox ko dala naan jëlal boo ko gën a soxla rek mu bàyyi kook yow moo tax man la nit dëgg la góor piir la dal di ko ñaanal euh, émission bu neex et puis yow mi animé émission bi tamit liñ ci bëgg ci moom yàlla wanale la ko waaye mi ngi noonu daal mënu ma wax euh, carrément ci moom lu bari parce que dafa sori ci man mais am leen jàmm et béggé Samba Sine alias Kouthia. rë rë rë rë kooku ngeen dégg mooy Ablaye da ngeen di faral di dégg Kouthia ci ay animation rajo di tudd Ablaye Diop Ablaye Diop Ablaye Diop Ablaye Diop Ablaye Diop. Euh, Ablaye Diop nag euh, du ngeen koy faral di dégg. mais xam naa ne ku mel ni Alioune Barara Socé mi ma jàkkaarlool ak mboolem technicien yi. ràññee nañ Ablaye Diop bu baax a baax. waa ju baax ni ku baax baax ku baax la ndeysaan sa sa waay la de waaw waaw waaw gis nga témoignage ñu defal la ko ci bi ngay dund dafa am solo mm-hmm. parce que bu fekkee ne dañ la ko defal sa ginnaaw ñu lal ni tim tim ne di la ko waxal mm. xëy na kat euh, doo ko yëg waaye mun na la fekk sa biir bàmmeel ci ay euh, jëf yu baax mm. waaye ci ngay dund nag wax dëgg yàlla day gën a tax nga yokk góorgóorlu mm. àdduna moom tey bu mu mel bi boo ko laajee naan ah Kouthia da ku baax la vraiment ñu ngi koy ñaanal bon émission yem fa mais dafa la balaa ngay xam jigéen war a xaalis. c'est boo ci amee ngor rek. mun ngeen ànd lu yàgg. lu leer nga wax li ngay ànd sa benn xarit ah. waaw nga ne euh, jigéen ak. Euh, xaalis ñooy yàq am waaw waaw mooy yàq waxuma sax moo yàq ànd moo yàq sa kër. sa kër waaw. Ah. waaw kër sax bu tasee ñaar ñaar yooyu duñ fa sori. waaw jigéen ak xaalis. lu yàq lu ne soriwul fa. waaw kay waaw kay donte boo leen amee moom macha allah. waaw ak nu mu mën a demee. parce que dafa mbokk ci ñi nga xam ne doomu aadama da ko teg ci bakkanam. waaw kay ba noppi mu bokk ci dund gi. ba noppi itam am loo xam ne lii ku ko amul amul amoo jigéen amoo xaalis dañuy daanaka société mel Sénégal dañ lay teg léegi nag da ngay bëgg a bokk ci groupe bi <laughs> léegi ku la ko bëgg a xañ da lay jar sa bakkan ah. ku la ko mën a bàyyee nag koo koy gor am na solo kon témoignage wu euh, Laye Diop maa ngi koy nuyu bu baax a baax Jóoba Juba Jóob am naa Diop ñoo bokk tur ñoo bokk sànq machallah <laughs> euh, ak waa RFM yëpp ñu ngi leen ciy nuyu ainsi que toute l'équipe technique euh, du groupe Futur Média merci beaucoup fii nag mooy groupe Sud Communication Abou xaw ma nax seetlu nga ko Koutia gis nga ba Oustaz Koutia ba mu toogee léegi Euh, day sëgg rek te loolu du du lu bees ci moom euh, ñu bëri dañ koy ràññee ne fu mu dem a chaque fois on a on a l'impression que Kouthia day am euh, difficulté pour siggi xool nit. kersa loolu wax kersa. lan lan moo waral loolu. Kouthia waaw loolu mooy maanaam mission bi nga xam ne moom moo la war xam nga tey oustaz Maodo oustaz la waaraatekat la waaye journaliste la. Mm-hmm. bien waaw dafay nekk ci po bi nekk ci po bi bu génnee nag loolu da koy teg fii nekk nag borom kër ci këram. Mm, léegi nag yow man li ma yàlla bindee mooy. daf ko dafa mooñaale kese boobu ci man mu nekk loo xam ne euh, xëy na moom. pourtant pourtant booy joué du feeñ. waaw du du feeñ. mais loolu moo ma ci jaaxal. waaw pourquoi est que booy c'est parce que instant boobu noonu kese bi dama koy jël teg ko ne rek dugg ci li nga xam ne moom mooy ci lay def te amul benn yoon may répété li may def. Hmm. man daal xam naa ne yàlla am na lu mu def ci man loo xam ne su ma taxawee ñëw ñu ne ma tey euh, Ndeye Fatou Ndiaye euh, Marème Ndiaye. Hmm. nekk fii def na. Hmm. Ndeye Marème Ahmed Aïda Mohamed Ndiaye moo xool revue de presse yi am yëpp. Hmm. daal di koy tënk. Hmm. su ma demee taxaw nag ñu ne ma départ top Euh, euh, euh, suñu borom commencé. Hmm. di ma wax loo ci loo xam ne. affaire day ñëw day ñëw hmm. day ñëw naturellement. Hmm. moo tax nag may segg bu baax a baax a baax li may wax pour xam ne li yàlla di wax loo doomu aadama. boo ko xoolee bu baax rek lu baax lay doon. donc yaay xool loo ciy modifié. daal di koy sucré et puis damay jàkkaarloo sama public bi may seetaan dama naan am na ku may seetaan ku ne kii neexuma te par la force dina ma seetaan faw ma convaincre ko tey bu jógee foofu noonu. ci place boobu daal ma fay bëgg. am kilifa diine boo xam ne mu ngi seetaan. xam ne amul worma ba bu bu ko xoolatee sax dootul dootu kii donc booy joué boo nekkee ci télé hmm. sooraaleel ne sa papa ngi toog sa yaa ngi toog sa sëriñ ngi toog hmm. ay kilifa ngi toog di la seetaan foo fekkul hmm. kon mooy war a tax nga am toogaay bu jekk wax wax du jekk ba kenn du la du la du la da nga débordé loolu moom mooy waaw Abou Bilal joué nga euh, génn am information wala wala wala lu neex lu la dal en même temps joué nga génn am information bu nakari bu la daal par rapport ak li nga jot a joué. waaw ñu si benn bu ci nekk benn boo xam ne vraiment lu neex la loo dund gannaaw bi nga defee sa benn comédie ak beneen boo xam ne vraiment lu la nakari la boo dund gannaaw bi nga paree sa comédie. ci at bi daal laa la a wax parce que dafa ah. bëri mais ci at bi. Ah. Ah. bi ma gisee Macky Sall bi mu nekkee ci palais bi di nelaw. Hmm. frère am bu mu bokk ak ndey baay monsieur le maire Aziz Sall hmm. y a le président euh, euh, chemise bu mel bu mel <laughs> noonu. Hmm. lay sol moom la sol moom lay sol. Ah, deuxièmement ni nga waxee effectivement yëndu ci bi ak yooyu noonu la affaire demee. mais yow booy vraiment yow ku jar ragal ga. loolu nag mu nekk lu ma neex kon donc nag sama inspiration. Hmm. Euh, trompé ma ak 80 pour cent laal naa waa hmm. deuxièmement tamit. li ma gën a naqari mooy dama def benn faute technique. mooy ci commission lunaire bi nga xam ne dafa am bi passé. ñu dama dafa amoon actualité. amoon xëccoo Mouhamadou Cissé Ndiéguène ak Omar Diène hmm. ma daal di interprété euh, rôle euh, pa bi ndekete euh, j'ai mal compris ma ko defee immédiatement bi mu jàllee ñu réagir wax ma ko dama dem tuub raam jéggulu ñaan nekk fa ci góor gi di ko ñaan ñaan waaw dama joué woon vieux bi le vieux là ak ak ak ak hmm. nga xam ne ma porte-parole de famille Ndiéguène Omar Diène hmm. ñu am ministère de l'intérieur ñëw na leen léegi pour ngeen pour ngeen xool weer bi mhm. dañuy xool ku ci gën a gaaw gis moom lañ koy def donc ma jëlee ko ci plan boobu mhm. euh, pour départager mais famille bi affaire bi jotuloon neex parce que xaw moon mhm. la personne de Serigne Mouhamadou euh, euh, Ndiéguène Cissé Ndiéguène donc mu nekk foot boo xam ne dafa ma metti metti metti metti le lendemain dafa ma émission dama ñëw justement pour def émission boo xam ne répliquer tout jéggulu dem ba ci góor gi ñaan ko mu baal ma ak moom te mu kontaan lool ci li nga li ma li ma def nee na loolu la l'islam war a nitu diine a def boo tooñee da taxaw fi nga tooñee hmm. nga jéggulu ba ñëpp xam ne fa nga taxawoon wax foofu nga taxaw jéggu hmm. jéggulu nit noonu la war a def parce que boo wàccee sa bopp rek yàlla yëkkati la waaye am na ñoo xam ne du ñu nangu loolu dañ ko def ba pare ñu ne la page def ci lu reetaan mooy li ma gën a marqué ci at bi te loolu faute la boo xam ne peut ci euh, manque de euh, communication bu baax bu ma amul ci góor gi hmm. waaye après euh, toogaat naa gën a defaraat parce que si laay soog a xam ne wax dëgg yàlla euh, am na am naa audience boo xam ne ah audience su kilifa diine parce que wax dëgg yàlla lu hmm. lu waar la hmm. ba tey na ma toog di jégalu ñaar yooyu daal wax dëgg yàlla ci at bi bi ma rakk Macky Sall waxee ne waa ji koo laal hmm. <laughs> <laughs> am na keneen ku ne ma nag waa noonu la mel <laughs> xaram rek lay def ah, dégg naa sa waay bu tëddee moom fu mu ne boo jaaree buntu pale eh. da yaakaar ne ay euh, rhinocéros ñooy romb noonu waaw sama la maram gaawal waay sinon dama gaaw nelaw yow su nekk ci liggéey bi di liggéey rek da nga gaaw nelaw le temps ko indi reer noonu ay minutes xanaa ah, mag sàll ay deux heures rek lay nelaw lay eh. Macky ah, gis nga wax noonu su ma toogee rek damay nelaw du ma ko tey ah jé jégalu baax baax baax euh, kon kon <laughs> kon président bu ñu ku ci romb ci buntu palais rek. ba na saxal dem ci. non di nga am benn lampe buy tàkk boobu gisa nga boobu ba ay deux heures matin day tàkk nga naan sa waay ngi liggéey de fekk <laughs> nga naan moom yàgg ci bureau bi waxuma nekkul di liggéey de day liggéey mais day nelaw. <laughs> am na solo euh, Abou Bilal Kouthia euh, Kouthia euh, information beneen boo xam ne marqué nañu ci yow ci ci at bi weesu ak at bi yëpp. Uh-huh. mooy oustaz dañoo xëy suba rek. Euh, information bi nekk ci une une journaux yëpp ak euh, site internet yëpp. waaw Kouthia atteint par le coronavirus. waaw. waaw euh, non nan nga dundee période boobu. waaw le 11 mai la woon du ma ko fàtte du ma ko fàtte mukk le 11 mai nañu defoon test ma bokk ci ñi nga xam ne amoon nañ ko. ñu hmm. orienté ñu man yàlla di yàlla nag dimbali ma. Hmm. ba ma dem Fann bu ma demee Fann nag euh, premier jour deuxième jour affaire bi gën a garaaw. Hmm. ñu yóbbu ma réanimation bu ma duggee réanimation nag laa gëj a xam li xew. ba jour bi nga xamee ne nee nañu Kouthia bokk na ci cas grave yi. waaw jour bi nga xam ne wax nañu Kouthia bokk na ci cas grave yi. loolu information bi dugg ci Facebook yi yëpp la sénégalais yëpp ànd def def ñaan. Hmm. may wax na ne d' accord corona am na médicament yi ñu doon calmer am na. waaye man gëm naa ne ñaan moo ma génnee foofu. Hmm. ndax fi ma nekkoon ci situation boobu. Hmm. bu ñu doon neuf bu ñu doon dix. Euh, trois ñoo fa génn rawal seen bakkan man ak xëy ak ñeneen ñaar mais ñëpp da doon xëy gis ñuy yóbbu di yóbbu chaque jour ñu xëy yóbbu kenn. yow da ngay gis ñuy romb nii da ngay ñoo dañ doon nekk ñooy bokk ci benn salle. mais chaque jour ñu ne kooku kooku dem na. donc euh, mu nekkoon lu garaaw mais. kon ñaanu sénégalais yi daal. sénégalais yi ñoo ma yëkkati parce que ñoom ñoo ma ñaanal. macha allah ñëpp di ñaan prier pour notre Kouthia national mu nekk lu ma neex loo xam ne moom mu mais léegi Abou Bilal euh, d' abord. Euh, naka nga sentir ne naka nga sentir symptômes yi naka la la feeñoo. waaw ni muy feeñoo nit ñi rek. Hmm. ni muy feeñoo nit ñi ah. mais est ce que da nga jékki-jékki xam. wala déedéet xaw ma de dama ñëw rek ñu woo ne ma <laughs> dafa am ñu fi corona te hmm. ci même équipe bi nga bokk. mais naka nga ko sentir yow personnellement ne yow am na lu lu doxul daal bi ma demee ba dugg ci hôpital bi laay soog yëg na ne man jàpp sama làmmiñ lewet na woon. Hmm. li ma doon li ma doon euh, lekk daawuloon saf deuxièmement tamit euh, respiration bi dafa xawoon wàññeeku tuuti. Hmm. nga mel luy xaw a fatt mais yàlla dafa ma doon dimbali à chaque instant euh, may may may may ma dugal nii. Hmm. ay fu fu doy waar la réanimation te gisoon naa toujours ay professeurs yu mag di ma wër. ay di ma di di ma di ma di ma toppatoo ma ma génn. génn waaye bi ñu ko jéebaanee ba ñëpp yëg ko hmm. wax dëgg yàlla gëm naa ne ñaan yooyu bokk na ci li nga xam ne moo ma yëkkati ba sénégalais yi nag euh, mën a gisaat ku ci tiitoo benn instant waaw tiitoon naa parce que boo nekk ak ay nit hmm. euh, nga nekk ak ay euh, juróom-ñeenti nit ci benn saal hmm. chaque jour ñaar dem wax dëgg yàlla liñ ah. <laughs> ñu ne ma paay nga doon waxal fii ñeent yi dem nañu te mu des ñett après gars yi mi kaañ changer sa place yóbbu la fële mën a waaji place beenee ma du ma dem foofu de <laughs> comme que fee la ñëpp di dem man bàyyi ma fii rek waaw fii fii moom bàyyi ma foofu rek euh, keroog laa xam ne wax dëgg yàlla lépp lu la wax ne ko ko def. Hmm. ci boo ko tuddee ci turu yàlla yi mën na la kii wax naa ko sama biir xel. Hmm. waaw ba yàlla def nag euh, Abdoul Aziz Mbaye bi nga xam ne. Hmm. Euh, journal animateur la foofu ca TFM. daa day wax ne Serigne Babacar Mansour si moo la soxla. bi ma sëñ Mbaye si Mansour wooyee téléphone. na ma incha allah di nga jóg wax fa dëgg yàlla keroog sama xel dal na. sama xol naan na kontaan naa teguñu fan rek yàlla def ma daal di génn ndax lu euh, bëri xawoon na fi mais comme que loolu moom hmm. plaie la boo xam ne cicatrisé wu na hmm. damay euh, ñaan yàlla rek gars yi gën a jël nag seen hmm. mesure de euh, kii mais am na de waaw ba barrière am na de oustaz oustaz même même même ci lu sérieux lu mel ni feebar boo xam ne waaw ci ku xam xam na ne c'est c'est c'est ça fait très mal mais même moom il le prend légèrement quand il en parle maanaam dina ci xaw a boole as toute comédie ba nga xam ne <laughs> finalement day alléger sax mbir yi quoi waaw xam nga loolu gëm yàlla koy def beneen bi ci tegu dafa wax lu am solo mooy wàllu ñaan ñaan dafa am solo lool parce que euh, fi mu mujjee rek fi la ko Sénégal yëpp doon xaar ndax dañ ko wax ci réseaux sociaux yi hmm. na ko yàlla yëkkati xam nga baatu yàlla na ko yàlla yëkkati ji rek hmm. ak yéene jooju lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt xale yu ndaw yi sax ku ca yàlla na wér loolu yàlla da ciy def barke léegi nag ñaan googu ñaan yooyu nag yàlla dafay wax ne ngeen may ñaan ma leen di wuyu ndax dama a def ci àddina hmm. na nga ci jiital yàlla boo nee ba jàq nga tàllal ko loxo kon kon gis nga ne kon sénégalais yi ndekete li nga yaakaaroon sax li nga njortoon sax ndeke weesu na sax foofe na foofu na hmm. a ko màkk hmm. da lay dolli confiance parce que benn dama doon wax gars yi ne am na màkk boo fa demee julli fa benn ah oustaz ah, fay na xaw ma ñaata julli am nga am nga waaw kay buñ ma laajee ma ne l'état actuel dama damay crédit ah, sont pas épuisés kon ba tey li ma julli màkk dafa bëri ba nga xam ne am naa yeneen yoo xam ne su ma ko julli dina ko compenser <laughs> mais dama ne bu ma génnee ci feebar bi laa su ma déggatee allahu eh. balaa ñu akbar maa ngi dem jàppi eh. parce que gëm naa ne wax dëgg yàlla li ma doon wax ma caaxaane sax mais daan naa julli tey hmm. ngoon si ma tëbal di boole di fay hmm. mais léegi fu ma fekkati hmm. buñ ne julli jot na ma lal julli ndax xam naa ne man ah, man man euh, dañ ma defoon garde à <laughs> <laughs> ma nekkoon garde à vue la donc desoon na séance bi nga xam ne. Eh. dañ ma waroon yóbbu procès. bu hmm. <laughs> ma jàlloon procès nag soit dañ may dañ may yóbbu yóbbu mooy maara ndeysaan àllaaxira mais bi biñ ma defee garde à vue la àddina bi yëngu. Hmm. avocat yi taxaw mooy waali yu yàlla ñu mel ne ñëw euh, oustaz Maodo ku nekk di ñaan di ñaan eh. yàlla da ah am nga chance beneen yoon la tey boo ko defatee rek eh. <laughs> ah, rek bu ma génnee rek man a yàlla na borom nag wax dëgg yàlla eh. léegi moom ab ah, da yow cinq bés cinq kii nga wax euh, euh, mais dinaa la buuñaa yeneen cinq <laughs> muy dix na solo oustaz Abou Bilal Kouthia ñu koy sant réaction yi ci plateforme bi tey tey tey dama ko kii publicité yi dañoo bëri ah. Euh, euh, mais ci YouTube bi gis nga euh, y' a énormément de réactions say soppe ñoo xam ne Espagne la Baye Cheikh ma ngi lay déglu. sa soppe la Bounar Sagna mouvement citoyen yiiw yiiw an. waaw ñoom Sagna an yiiw waaw nee na on est fier de toi. waaw ñu ngi lay béggee bu baax a baax. jaxate jaaji Laye Dieye Amadou Diallo ah, du ma mën a lire message yi ah. parce que dañoo bëri ah ci sunu chaîne YouTube Mor Ndiaye Alpha Omar Ba Marie. Euh, Tawa Seck et cetera nee na mooy suñu Kouthia national euh, kan Cheikhou Ndongo Thiam Lay Sow Mortala et cetera et cetera merci en tout cas gis nañ ne en direct ci YouTube bi vous réagissez énormément de la même façon que en direct ci Facebook bi Oumou saw euh, kontaan lool Matar Senghor Kouthia ñu ngi lay bëggee Kouthia a parfaitement raison Abou Traoré mooy li ngay wax ci théâtre yi Alpha Borso Alpha Diallo noonu la Ablaye Thiongan Modou Gueye Kër Massar moom suñu soppe la Vieux Niang et cetera ci Facebook beeg ci YouTube bi dañ ciy nekk en direct mi ñuy gis réaction yi noonu ñu ngi leen di leen ci euh, di la sant di la gërëm lan nga leen di yóbbante bu fekkee am nga ci benn message gars yi d'accord xaalis bi neex na trop mais nañu nañu sóoraal seen carrière hmm. parce que mun nga gañewee at bi déwén gars yi na non kii moom saa parce que daaw li mu defoon moom hmm. xaalis bi baax na mais am lu tuuti barkeel moo gëm lu am lu bëri te barkelul mm-hmm. parce que tamit vraiment euh, yow mënoo nax nit ñi parce que nit ñi ñoom moom seen téléphone mm-hmm. seen télécommande mm-hmm. ñoom ñooy zappe fu leen neex kenn moomu leen kon yow war ngaa mën a xam li nga def ndax am na retour war a retour da mooy may yeddaat sénégalais yi euh, surtout comédiens yi ñuy dem di def théâtre yoo xam ne du bëri nit théâtre soxlul ay cinquante personnes wala yooyu le rire c'est quelque chose boo xam ne dafa naturel Hmm. le politicien yi mu di nangu suñu métier séddu ko ñun hmm. kon ñun ak ñoom a yem mais li may lancer benn message mooy hmm. ñi nga xam ne dañoo duggoon ci osan yi toj lépp te lekkoon ko am yu ñu gardé woon <laughs> wala nañ ko bu ñu wooree bu yoo ñu seen woor boobu euh, waa osan ñoo ko moom ndax bu fekkee ne da ngaa dajji meew ak ceeb de ko ne damay bàyyi pour di ko wooree xëddee loo xam ne da nga ko jëlee ci ay manifestation toj ko dogee ko yow munoo fexe ba ñaan yàlla xajtoon nga ci osan yi dent ko sa kër naan da ngay xaar meew bu neex moom ngay xëddee war a ceeb yi ngeen jëloon génn leen ko ngeen sarax ko war a ngeen delloo ko fu ngeen ko jëloon bëccëg ndar kam kenn du leen jàpp ngeen teg ko ci buntu osan yi delluwaat loolu nag dina jafe de ren nag Sénégal pour ñu am 100 pour cent koor yàlla fa la jógo day kii de ah. waaw parce ah may xool 15 osan booy lekk di si <laughs> diis yëpp booy dóor nañ ko mais loolu noonu ku woor nii doo ngeen woor ba dee tey naa fi ne dañoo xasawaraa foo leen toll <laughs> jaa ngeen jëf la une de Sud Quotidien aujourd'hui parle des de l'affaire des faux médicaments euh, saisis à Dakar Koutia Abou Bilal moo nekkoon suñu gan Oustaz Maodo Faye jërëjëfati c'était votre on se donne rendez-vous demain visez la lune merci à l'équipe technique merci à l'équipe digitale c'est toujours un plaisir de vous accompagner tomorrow ak beneen ndaanaan kan lay doon on se ci darajay xadiisu yonent bi ci darajay salaatul fatih ci darajay malaikatul muqarrabin ci darajay aqtaab yi ci daraja afraad yi ci daraja awliyaa urrahman ci daraja ay ak machaayix yi yàlla may nu